Luk saar fukk ak dugg na Yeriko jaar ca dëkk ba di dem waaye amoon na fa waa ju ñuy wax sase njiitu juutikat la te di ku bari alal bëgg naa gis kan mooy yéesu waaye dafa gàtt lool ba mënu koo gis ndax mbooloo ma noonu mu daw jiitu ji ca yoon wa yéeg ci genn garab ngir gis Yeesu ndaxte foofa la naroon a jaar bi yeesu dikkee ba tolloo garab ga nag mu téen ne ko saase wàcceel gaaw ndax tey sa kër laa war a dal saase daldi gaawantu wàcc gadale ko ak mbég ñépp gis loolu di ñurum ñurumi naan mu ngi dal ci këru boroom bàkkaar waaye saase taxaw ne borom bi déglul borom bi dogu naa may sama genn wàllu alal miskin yi te lu ma masa njubla ak nit jël alalam dinaa ko fay ñeenti yoon lu ni tollu yeesu ne ko mucc gi wàcc na tey ci kër gi ndaxte nit kii ci askanu Ibrahima la bokk itam ndaxte doomu nit ki ñëw na ngir seet musal ni réer bi nit ñi doon déglu kàddu yooyu Yeesu teg ca léeb ndaxte jege woon na Yerusalem te ñoom foogoon nañu ne nguur yàlla dafay daldi feeñ ca saasa mu ne nag dafa amoon boroom juddu bu rafet bu demoon ci réew mu sori ngir ñu fal ko buur te mu dellusiwaat noonu mu woo fukk ci ay surgaam jox ku nekk benn libidoor ne leen liggéey leen ci ba may ñibbisi waaye waa bëgguñu ko noonu ñu yónni ndaw ci ginnaawam ne bëggunu nit ki yilif nu bi ñu ko falee buur nag ba mu dellusi mu woolu surga mu joxoon wurus wa ngir xam nan lanu ci liggéeye ku jëkk ko ñëw ne ko sang bi sa libidoor bi jur na fukki libidoor buur ba ne ko def nga lu baax surga bu baax nga segem wone nga ne takku nga ci lu tuuti falul ci fukki dëkk surga ba ca topp ñëw ne sang bi sa libidoor ba indi na juróomi libidoor buur ba ne ko yow falul ci juróomi dëkk keneen ñëw ne sang bi sa libidoor baa ngi nii dama ko fasoon ci sekkiit denc ko dama la ragaloon ndaxte ku néeg nga dangay nangu loo dénkaaniwul di dajale loo jiwul buur ba ne ko ci say wax laa lay àtte surga bu bon bi xamoon nga ni nit ku néeg laa di nangu lu ma dénkaanewul te dajale lu ma jiwul lu tax nag yóbbuwoo sama xaalis ca denckati xaalis ya bés bu ma ñëwee nag ma mën a jot sama xaalis ak lamu jur ci kaw loolu mu ne ña taxawoon ca wetam nangu leen libidoor bi ci moom jox ko boroom fukki libidoor yi ñu ne ko sang bi am na fukki libidoor ba noppi buur ba ne leen maa ngi leen koy wax ku am dinañu la dolli waaye ko amul li nga am as néew sax dinañu ko nangu waaye sama noon yi ñi bëggul woon ma doon seen buur indi leen fii rey leen ci sama kanam bi mu waxee loolu ba noppi yeesu dafa daldi jiitu jëm yerusalem bi muy jege dëkki betfase ak betani ci wetu tund wi ñuy wax tund olivier yéesu yebal ñaar ci ay taalibeem ni leen demleen ci dëkk bi ci kanam bu ngeen fa duggee dingeen fa gis cumbur gu kenn musula war yiwi leen ko indi bu leen kenn laajee lu tax ngeen koy yiwi tontu leen ko borom bi da koo soxla ñaari ndaw ya dem fekk mbir ya deme ne leen ko yeesu waxe woon bi ñu yiwi cumbur ga nag ay boroomam ne leen lu tax ngeen di yiwi ci nguur gi ñu tontu ne ndaxte borom bi da ko soxla noonu ñu indil ci nguur gi yéesu daldi lal seeni yére ca kaw yéegal ca yéesu bi muy dem nit ñi di lalal yéesu seeni yére ci yoon wi bi ñu agsee fa mbartalum tund olivier doore taalibeem yépp fees ak mbég tàmbalee màggal yàlla ca kaw ndax kéemaan yu bari yi ñu gis ñu ngi naan yow buur bi ñëw ci turu borom bi ku barkeel nga na jàmm am ca asamaan te ndam li féete ca barab yu gën a kawe waaye ay farisiyen yu nekkoon ca mbooloo ma ne yeesu kilifa gi yeddal sa taalibe yi noonu mu tontu ne maa ngi leen koy wax bu ñu noppee ñoom doj yi xaacu bi yeesu jegee dëkk ba ba ko mu jooy ko naan ca yow itam boo xamoon bisub tey yi la mën a indil jàmm waaye fi mu ne mënuloo koo gis bés dina ñëwi yu say noon di jàll wërale la dinañu la tëj ci biir tànc la dinañu la yàqaate yow ak sa waa dëkk doj des ci kaw doj ci yow ndaxte ràññeewoo jamono ji yàlla ñëwee wallu la ginnaaw loolu yéesu dugg ca kër yàlla ga daldi dàq ña fay jaay naan leen mbind mi nee na sama kër këru ñaan ci yàlla lay doon waaye yéen def ngeen ko këru sàcc bés bu nekk yéesu di jàngale ca kër yàlla ga saraxalekat yu mag ya ak xutbakat ya ñoom ak njiiti xeet wa ñu ngi ko doon wuta reylu waaye xamuñu woon lan lañu mën a def ndaxte nit ñépp a ngi ko doon déglu bañ benn baat raw leen